jaajëfal alxaaji suñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanu ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara suñ Mbàkke maa ngi ci tomb bu tudd al uxuwa muy tomb bi ñu yóbbu woon mbërki démb ca cene ba fekk suñu doom ji Muhammad gi ak alxalifa xalifa e, li taifa tabaarakallahu mu jëm ci wàllu ak bokk ak bokk bu ko wolof waxee mooy ñu bokk dara ma doon lim maanaa yi nga xam ne moom la ak bokk làmb ma tuddoon ci uxuwatu nasab te mooy wàllu deret ma doon ci uxuwatul ashira wala xabila te mooy wàllu giir ma tuddoon ci uxuwatu diin ma tuddoon ci uxuwatul mawadda wa raxma bi njëkkati jataay bi démb ci lañu tolloon nga gis ne wa nazaana ma fi suduri min xill ku fajuwul ci ku fajuwul ci feebar boobu doo bokkoo kenn te mooy feebaru xill bañ nit te amul foo mbañeel gi waaw ndax maam Sëriñ Tuubaa daana wax ne radiyallaahu taala anhu ab jullit moom ab jullit da koy bëgg rek ab yéefar moom ab jullit da koy bañ rek mu ne bu fekkoon jullit bi saa bu ñëwee teg lay benke ñenke sañoo koo bañ bu dee yéefar bi saa bu xëyee jox lay xéewal sañoo koo bëgg yow waay allahu akbar te loolu tarbiya la gu am solo ci pénc mi tarbiya gu rëy ab jullit sañoo koo bañ mu ne même su fekkoon saa bu xëyee teg lay benke ñenke sañoo koo bañ su dee yéefar bi mu ne sañoo koo bëgg même su doon saa bu xëyee jox lay xéewal wa ahbibil mumina lil imaani wal tubqidil kaafira lil kufraani mu jeex tàkk waaw mu jeex tàkk moo tax sunu mag ñi jàng leen ak tarbiya gi ñu daan def ci nun def ko ci sunuy bàyyi ci sunuy maam ah am na solo de loolu de niveau la de ndax wallazina maahu ashiddaau al kuffaar ca tege ruhamaau baynahum door a ñëw ashiddaau al kuffaar ruhamaau baynahum door a ñëw bu sens contraire bi amee nag du baax bu sens contraire bi amee du baax bi ma yëkkati jotaay bi dem ma ne woon suñu xëysee ñu gis uxuwatu suxba muy bokk goo xam ne ànd bu yàgg ko jur mun la ko la fi waxee bokk goo xam ne ànd bu yàgg ko jur hmm? waaw bokk leen ndey bokk leen baay bokk leen famille bokk leen giir rek waaye yàgg ànd yàgg ànd lu am solo la muy asaahibu wa siddiq xam ngeen ne werante wa amoon diggante ñaar ña doon dem ca Daawuda pour mu àtte leen waa ji nangu nay xaram ba noppi téewul mu wooye ko mbokk waaw mu ngi fas yéene nangu xaram parce que penc bi daa am ñoo xam ne bari la téewul ñu bëgg tëdd ci yëfi jàmbur yi mu am ñoo xam ne seenug bari la tax na ñu doyloo yëfi jàmbur yi doomu aadama ci pénc mi léeg-léeg soo xam ne kii ay milliards la yor fekk ko yor bu ganaar ma bëgg koo nangu walla siix tey moom lim yor du jeex xissab alxuraan la bu am solo waaw ku bari la lool hmm? waaye li ngay barile barile mën ngaa fekk ko yorus tuut nga ne ko coppet daa ñu daan léebal ñu ne picc ma daa toog di jooy mar meneen morom piccam ñëw toog taxaw ci suufam rongañ bu toq rek moo naasu ko moom ndax faju mar mu new waaw dañu ko daan léebal déggal alxuraan inna haada wa tisuna naaja wa lii naaja waaxida nee na sama mbokk mii gis nga ko def téewul mu waaye ko mbokk nee na quatre-vingt-dix-neuf mouton laa am quatre-vingt-dix-neuf mouton man menn mouton laa am mu bëgg jël sama mouton mi booleeg lim am gis nga loolu ci pénc mi ñi barile ak ñi néew le ku am fanweeri kër ak ñett di xëccoo deux mètres ñaari metre walla mètre carré Hmm? waaw waaw loolu ëpp naa def ginnaaw am nga te sunu ci naaja moom benn naaja la am bàyyi ko naajaam bi nag waaw jàmm ni ñooy waaye bëgg jël xaram mi booleeg sa quatre-vingt-dix-neuf ndax nga am cent hmm? loolu ci bokk loolu ci bokk ci li yàqu bokk la waaw nogg ci nit ñi nangu li ñu am doll ci li nga am waaye teewul mbokk la ko tudde inna haadha axi mbokkam la wax waaw te kenn mënu ci dara mbokk yi kon lim naa fi ak mbokk uxuwatu soxba mooy gi ma toll nii gi ma jiitoo lool mooy al uh, uxuwatu nasab teg ca uxuwatul ashira uxuwatu diin uxuwatul mawadda uxuwatu raxma ba baa ngay àq ci agsi ci uxuwatu suxba loolu lu am solo la euh, boo gisee jëkkër ak jabar walla xarita xarit ak xarit léeg dem fekk fa uquwa amiqa jiddan waaye la koy may mooy kenn ku nekk la alxuraan woon isbiru teg ca wa saabiru doomu aadama joo gis dafa am ay sifaat ay melo <coughs> doomu aadama joo gis rek am na ay melo ay qualité ak i défaut ku bëgg a bokkook mbokk yi te muñoo muñ seeni benk ñenke doo dem suñu Cheikh Mbacké ngay Fatma ku bëgg a bokk nit ñi te xajowoo seen benke menk yeeg seen manqué manqué yi doo dem kullu insaani lahu sifaat waaw koo gis rek dafa am ay ay melo waaye ay yu negatif ak yu positif wala bokk ijaabiyaat ak salbiyaat bu alxuraan ne isbiroo muñ leen wa saabiroo te muñalante mooy défaut yi nit ki am danga koy nangoo muñ yow te mu muñ say défaut nag ndax ni mu amee ay défaut moom nun nga am ay défaut yow moo tax diggante jëkkër ak jabar jëkkër day am ay défaut hmm, ak i qualité jabar am ay défaut ak i qualité suñu santee yàlla ci qualité yi góor-góor lu mu ñu lëlante ci défaut yi mën a dem mën a dem xarit gi noonu la sa xarit bi am ay défaut bu fekkee xarit bi am défaut nga wàcc at mi da ci am fanweeri xarit ak juróom-ñett te sunu yëre yi kat yëre bu ci tilim kenn du ko wacc tilim tilim bu ngay dindi ndax tilim tilim bi ci yére yi défaut ci moom nga jox ko jongama ju melut ni nogay mu fóotal la ko gàkk-gàkkee dañ nga paase waat daal di solaat waaw mu defaat ko nga defaat ko bopp jigéen ñi bopp bu ci ràpp ñu firi dañ di léttaat waaye doo mare ba bi ne ko duma la léttati kon nit ku nekk daa am ay qualité ak ay défaut nañu nangu nañu nangu defo yi waaw jéem a jubbanti suñ kamtu lay kattan lépp loo xam ne ni nag dafa nekk ci jikko yooyu mooy tax nit ki ñu xàmmee ko ma ne qualité yi ak défaut yi foo dem ci nit rek fi sax ci insaan ma ca kenn ku ne ma nga ca boo demee ci alxuraan daf ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha fujuraha mooy défo yi wa taqwaha mooy qualité yi ku yàlla bind yaa ngi loolu waaw mu ngoog léegi nag li tax suñu borom ne xadaaf laa man zakkaaha mooy ki am défaut yi te man koo man ko duñu ba nit ñi duñ ko xam koo koy sobe bu ak bu ëllëgee waxada xaa man dasaha mooy ki mënul dara ciy defam ba bu set défaut yi di yokk waaw suñu am ne ne ko jar naa duma bu ëllëgee eh, tabarkal la yàlla buñ ca bokk yàlla bu ngeen ca bokk mbokk yi loolu mooy uxuwa googu ci wàllu amaliyatul xubb bayna zawjayni wa bayna al asdiqa waaw mu ngoog su ko defee boo gisee nit boo ko doon laaj téeméeri laaj ñaari téeméer bu junniy question ah, bu junni question ci wàllu yow yan jagle nga am ci sa personnalité yan ngay bañ yan nga bëgg loolu boo ko dee laaj nit réponse yi du bokk la la bàcc si di wax ah ak lala la saa si boobu di wax du nekk benn bàcc bàcc siis ak nit la gu nekk Kër Madaaro saa si mbub nekk nit ku dëkk xombal waaye boo taajoon bàcc si di ko si ay question boo noppee dem ca saa si mbub réponse bu ni danga ko dégg hmm, waaw moo tax al mu'min lahu xasaa'is wa xeerul mu'min lahu xasaa'is jullit jullit am na ay jagleem ay particularitéem ki dul jullitit am na ko waaw ku jullitam am na ko léegi nag relation bi doxal sa digganteek ñi la jege na nekk relation bi doxal sa digganteek ñi la sori ndeysaan nga nekk nit koo xam ne kii laa darara wala diraar mu hmm? nga ci ngay amee it ci ngay amee it lii dox sa digganteeg ki la féete kaw ak lii dox sa digganteeg ki nga tollool wax nañ ko bërki démb ci alkitab nit ñi booy wax ni am na koo xam ne kii moo la raw li ngay wax moo ko gën a xam moo ko gën a man gën a jekku foo dem ak xam na ko waaw foo dem ak masque xam na ko boo boo boo nga wax an xasaisi shaxsiyatihi waaw an boo ne woon an xasaisu fa mu tëdd daf naan ëw danaan ëw xarfu jar song ismu rafu ko dañ ne la ëw <laughs> laaj ko euh, tubaarkàlla suñ magum daara sii si jingee ndeysaan yàlla na ko yàlla yokk wér mu ngoog ki la ki la raw moom mi ngi dégg yooyu mën na koo mën na koo toléré ki nga xam ne yaa ko raw xamu ci dara nogay fi ne xamul masque gu ma yàq ñoom seen yooyu bari na ci morom waaye ki tolloog yow nag ki tollook yow moom boo yàqee maska tey moom lay yendoo boo yàqee masala tey moom lay yendoo moom lay yendoo tey moo tax euh, al mu'min lahu xasaais wa xayrul mu'min lahu xasaais ngoog bu ko defee euh, ma aman fawqahu ma aman fi mustawaahu bu ci nekk rek nga xam nan nga koy defee moo tax su fekkee ne dangay seet ci nit ki côté yu négatif yi rek ngay xool défaut yi rek ngay xool doo dëkk ak kenn doo ànd ak kenn doo nawloo kenn waaw boo fi bàyyee défaut yi nag yem ci qualité yi mën a ànd ak ñëpp boo boo yemee ci qualité yi nit ki mën a ànd ak ñëpp ndax nit léppam du négatif léppam du lu positif yàlla mi ko bind moo wax ci suurtu si wax ju ma wax sànq mooy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha waaw fa alhamaha ko ha mu naaw waaye déggal kazaba thamud bi taxwaha idin baasa ashqaaha ba saar wa jeex mbokk yi alxubb bayna zawjayni kathira amaliyatul xubb waaye attaqaatuaat fi saxsiyati zawjayni moom tam tafsiratun wala boog ahadu tafsirat al ilmiya lil xubbi bayn al asdiqa waaw li mën a firi bëgg gi nekk diggante ñaari way dencante bari na lool waaye li mën a firi dogoo gonante ginnaaw bari na lool ndax bu jëkkër ak jabar nekkee di toppantey benke ñenke ak nekk ci seere détail du ñu dem mukk te léeg-léeg nit am ay qualité waaye ñu fabriquer ko ay défaut ba mu far nekk nit ko bari defo hmm? wax naa ko sama gaan ak bërki démb gi ci <laughs> waaw sama jëkkër ji daf may wax lu dul dëgg ndeysaan ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko ah, am na ji góor ñoo xam ne day daanañ wax dëgg waaye ñu am jabar joo xam ne ji daf leen di enquête fu ñu toll seen débat yépp mooy enquête day mujj ak ki nga nekkal nekk fenkat mu ne ah ma ne ko waaw ndax su fekkee ne fu toog nga ne ko lu tax nga toog barab sàngam bu ñëwee nga ne lu tax ñëw heure bii sa téléphone bi kan moo la ciy woo lu tax nga def ci code nangam na question yooyu moom itam day wut ay réponse réponse yooyu daf koy fabriquer waaw léeg nga dem ñàkk nga yëg ni lam waxoon keroog du dëgg du dëgg parce que nangam nangam gis nga <laughs> sunu mbokkum daar ma leen nekk euh, Zig FM sëñ Mansour léeg-léeg mu dugg ci takkum suuf mi takkum suuf mi du dëgg du dëggu waaye nit lañ poussé ba mu dem ca ëpp naa def parce que bëgg bëggum ñaareel ti ñi mu woo ki fi nekk oyo <laughs> yàlla du yàlla dimbale moo tax nit dañ koy dimbale ci mbaax wa taawanu alal birri ñu bari jàng nañ ko ñu bari jàng nañ ko wa taqwa wala taawanu alal ismi wala udwaan mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ak seen njaboot ala alaaqa bayna al uxuwati al muminin yajibu an takuna alaaqata xubbin wa wudd ndeysaan relation diggante bokk ci ñàkk way gëm daa a nekk relation relation bu tege ci kaw bëgg tege ci kaw sopp waaw al alaaqa bayna al uquwati al muminin yajibu an takuna alaaqatu alaaqata xubbin wudd waaw loolu dafar nekk tege ci kaw sopp tege ci kaw bëgg déggal rek waaw ahlul mahabbati ahlullaahi di san ahlul mahabbati ahlullaahi waaw waaw ginnaaw ñi soppante ñooy ñoñ yàlla nanu soppante ndax ñu bokk ca ñoñ yàlla ñooñee waaw moom Cheikh Al Hadj Malick moo ko bind ca di san tey siir dem naa ci benn dëkk ñu ne ma dëkk bi la ko bindee ca kër gee ma dugg ca kër ga ñu ma ca néeg bee ma dugg ca néeg ba ndeysaan daal di fay xëm <laughs> dugg ci néeg bi daal di fay yi lu am solo ngi nii muy uxuwa googu uxuwatu alxaqiqatu l ula mooy innamal muminuuna ixwa innamal muminuuna ixwa sunu waajur wala nekkoon Louga alxaaji Mujib Jóob ci ñu dàqoon firi laay ji la bokk alxaaji Mujib Jóob ma ngi woon ca Louga ndeysaan waaye ku mënoon firi laay ji la waaw jàng lool te dégg lam jàng déggoon fiq kenn mësu koo gis rek ilimaan la woon ci Louga góor gi Alaaji Mujib Jóob bu daan firi laaj day wax ne ñii firi dañ naan innamal mu ñun ixwa jullit jullitee mbokkam mu ne mu ne yàq ngeen baat bi ndax yàlla waxul innal muminina ixwa waxut almuminuuna ixwa daf ne innama ne almuminuun door ne ixwa ñëpp ne teg yor seeni téere ca jumaa ja waaw jumaa ja daan tafsiree ndeysaan ci lañ xamante woon maag docteur Ahmed Lo ndeysaan yàlla na ko yàlla yokk wér innama almuminuun ixwa waaw ci laa xamante woon ak docteur Babou ma leen nekk ca eh, Mbuur waaw ak oustaz Alioune Guèye Thiénaba ca jumaa jox ja mu daan tafsire ndax dañ ca daan aylantoo tafsir ñun tamit ndeysaan ñu ne ko góor gi waaw mu ne innama ñii képp kott dong ñan al mu'minuuna ixwa ñoo di bokk mu daan ñu ko firil nag ci ndab yi ci kër gi ngeen baal ma mu ne kër gi ñaari ndaba fi am ndab li ñuy def li ñuy lekk ka naan ak ndab li ñuy def li gone yi di def dem tuur ko ca toilette ya raxas pot ba ñëw teg mu ne pot boobu potu chambre la tudd wala potu waas am ñu koy tuddee ñu ne ko waaw mu ne bool yi ci kër gi ñoom ñoom ay ndab lañu waaw mu ne bool yi ci kër gi ixwatun ay bokk lañu ndab yooye ñu def li gone yi def ixwatun ay bokk lañu <laughs> cey góor gi alaaji bu jib jóob ñu ne ha mu ne waaw mu ne innamam nunu ixwa mooy ndab yi ay bokk lañu mu ne lay na ca pot bee boo ko defoon ci ndab li lay na ca pot bee gone yi di yor pot waas wala pot chambre luñ ko ci di baax boo boo faboon la cay nekk def ko ci bool dem tóore ko raxas bool ba tibb ci ceeb kenn du la laaj fu bool bi jógee nangam nangam ndax i bokkam góor gi mu ne boo jëloon ndab bool boobu ñuy jox gone waaw bu bu bëggee tuur dugub mu def ko ca nee na pot boobu bi ci bees boo ko jëloon def ci cereeg soow teg ci kuddu doo jox kenn mu lekk ñu ne ko waaw mu ne lu bool lu ndab li def ay bokkam doo nga tax wóoluwuñ ko ñu ne ko dëgg la de mu ne bool nag ay bokkam a baax mu ne rikk waay ndeysaan góor gi aji mu jib jib mu ne rikk waay nan nangoo nekk ñun ñépp ñun jullit yi ay bool luy loolu ni nu wóoloo bool nu wóoloonte kooku ndax bool lu mën a def buñ ci defee ceeb ku tiim lekk waaye ndab yee lu mën a def kuñ ca defal lekk doo lekk ay bokk a tax man mu ñun ixwa dëkk bii am na ñaar muusa ngi fi kañang fi muus bi mën naa ñëw ci biir mbooloo mi di riisu nit ñi kenn koo dara waaye kaña fu mu tëbee am ku tëb topp ca yoru dàll wala walaw yet ay bokkam a tax innamal mu'minuuna ixwa teg leen seen baaram foofu bu ñu dégg la waxtaanu ajjuma bu samedi bu dimaas danañ ñëw incha allah ci innamal mu'minuuna ixwa luñ ca mën yaatal ñu yaatal ko ca jërëgéen jëf